boo yàggee bitim réew di nga gis kenn ku am salaire mu leer na ko ne loyer bi mënu ko fay mais day dem gis benn assistance sociale ñu xool ci lu muy gagné ñu ne kon kii mënu ko fay ñoom dañ koy jàppale. mais fii dafa complexe. je donne un exemple quelqu'un koo xam ne mu ngi ci àll bi par exemple war a fay benn cent mille francs amul salaire day taaba taaba di jaay bu njaay mi doxul du mën a fay kooku nu muy def. l'histoire est très compliquée mais ce bien mooy ki nga xam ne moo ñu war a mën a jàppale ci réponse mmh. bi mu ngi fi toog mmh. donc euh, man j'écoute mais c'est très complexe en mmh. Ceddo très complexe waaw euh, Pape Sidi may ma Ceddo daaneel ma jël téléphone euh, d'abord maa ngi nuyu ministre bi bu baax nuyu bu bees di ko féliciter ci waajtaay yu mu waajal boppam bu baax <laughs> Pape Sidi réew mi ay nit la nit yi ñoo fi ne nekk ci kaw suuf état di ko organiser maanaam sama-sama yi ngay dégg ci biir réew mi yëpp ci biir sunu la sama kër sa kër sama vélo sa oto ci biir sunu réew li la mais sunu bi lañ organiser wul nit ñi fi ne keroog démb barki démb def nañ fi débat ak Abdourahmane Diouf ci problème mu këy état bi xamul ñaata nit ñoo yeewoo Sénégal d'abord et c'est un problème terrible mooy Sénégal dañ koy estimer à douze treize quatorze quinze millions wax naa fii ne la ëpp nañu vingt millions di dem donc potentiellement population bi jeunesse bi moo ci ëpp ñoo ñëpp dañu war a am jàng wara a liggéey war a tekki war a am ay kër ëllëg seeni bàyyi ci yan condition lañ leen yore état bi ni ngay xamee rek ne ni muy organiser politique réew mi baaxul mooy ci biir euh, Covid bi bi ñuy wax ay waxu confinement am na kër yoo xam ne déjà rassemblement la biir réew am na kër yoo xam ne boo fa demee rassemblement la les gens vivent am na ñoo xam ne ñu ngi ci opulence bu ëpp am na ñoo xam ne ñu ngi ci condition yoo xam tant que tegoo sa bët doo ko gëm mais les fonctionnaires de l'État ne vont pas au contact de ces population pour maîtriser leur domaine gis nga problème loyer yi d'abord suuf si ci la nit ñi di tabax ciment cher na fer cher na d'accord mais suuf si la kenn mënta jot il y a une spéculation foncière dans ce pays boo xam ne elle est mm-hmm. les gens achètent des terrains à des centaines de millions terrain nu mm-hmm. kooku même bu ko tabaxee dix francs mm-hmm. il faut que mu dabu cent dix mille cent dix cent mille francs yooyu cent millions yooyu ak dix francs yi ci biir li ci toppit mooy am na ñoo xam ne ci dëkk bi jaay nañu benn terrain dix personnes ñii jaay ko quinze personnes ñii jaay ko vingt personnes. litige loo boo demee euh, tribunal loolu rek a fa ne. logements sociaux yi ngay wax déjà yaa ngi wax am na ñu versé. kii nee na amul apport. te am na te gis nga li ñu. te am na ñu joxe ay un million deux millions trois millions. donc problème mu suuf. mais communication bi mooy problème bi. ba pare et bon et moo yow kii li muy wax ak termes techniques yi muy utiliser. Mhm. sama yaay da koo xam. keneen ak keneen xamu ko te ñooñu ñoo yor kër yi gis nga mag ñi nga jàpp ne euh, nangam ak nangam ñoo ñoo yor njaboot yi yor ay dix personnes ñii yor quinze ñii yor vingt personnes il faut maîtriser la démographie il faut la catégoriser ba pare Abdourahmane Diouf wax na beneen wax bu garaaw keroog mhm. mooy réew mi am na ñoo xam dañuy dund ba dee du ñu am contact ak état ça veut dire que état def maanaam noo mën a dëkkee ci réew réew mu la defalul dara il y a des aides au dans certains pays parmi lesquels celui que nous copions surtout la France mooy da nga yor jabar yor ñaar ñetti doom rek ñu commencé di wax ne yow famille nombreuse nga di la wàññil ceeb di la wàññil diw di la da ngay am carte mhm. même booy booy dugg ci TR bi mhm. di ñi xam ne kii borom njaboot la mhm. prime day day wàññi donc état bi tant que organisé wul ba ñun suñu alalu réew ñu ciy dimbali néew ji doole yi directement France da ngay nekk chômeur wala ngay liggéey wala ngay dundee RSA. Mhm. c'est-à-dire état bi foog mu am somme bu mu yëkkati par mois. Mhm. di la ko jox pour ngay dund décemment. Mhm. l'état du Sénégal n'aide pas le Sénégalais. lambda d'abord nag loolu li ngay wax nii dafa laaj organisation li ci garaaw mooy les fonctionnaires de l'état l'état doit s'organiser de telle sorte que ñu am kër mais ay dix kër la ñu am ñii quinze ñii vingt kër. <laughs> ci domaine bi ngay wax ñenn ñi di am ay terrain di ko sax mais. da ngaa baax rek ñu may la terrain. bala entouré ko rek bàyyi waaw promoteur immobilier yi aussi. da ngay gis ci benn terrain boo xam ne. Euh, ña nga cay di di reyante tous les jours c'est les mêmes problèmes tant que loolu mi ngi am. organisation état jëlul ay mesures parce que bu nit taxawee ne etat mënul ça veut dire qu'on a un faible. etat dara tëw ko ci réew mi c'est presque l'arbitraire suprême dans ce pays-là. moom moo war saa bu nit ñi jaaxle mu ne leen yéen yëf yi maa koy organiser nii lay demee ndax sama sama yi ci biir sunu la mm-hmm. merci léegi nag comme maa fi maa fi le père de la nation man maa fi seen baay mm-hmm. léegi lii yëf yi nii lay demee parce que kenn moomu ko ñun ñëpp ñoo ko bokk loolu mooy problème bi il faut nit ñi xam ni réew mi dafa am ñoo xam ni dañ fee nekk nii mais nekk ñu sax ay nit tey jii boo demee ci région yu sori yi ngeen di wax amuñu problème loyer mais glace fay jar 500 ci weeru koor bi téeméeri dërëm am na ñoo xam ne bi Afrique bi monde bi amee ba léegi gisaguñu courant ci seeni village loolu mooy ñooñu buñ demoon yowmal am sax du duñu am ñu nettali yàlla. parce que seen amaguñu courant amaguñu télé amaguñu frigo amuñu. dans ce pays là. c'est vrai c'est vrai donc problème mu bi li ci ëpp ci waa Dakar la et puis on a un boom démographique boo xam ne. maîtriser wuñ ko. d'ici vingt ans les choses dont on discute la peuvent créer même d'autres problèmes parce que lii du co du cause conséquence la. Macky Sall nee na 90 pour cent de ces alertes rouges. Hmm. ci affaire lo ci affaire hmm. a été interpellée ndax xam nañu état bi et ce qui se passe on va le savoir juste après cette euh, personne qui nous appelle au téléphone. <laughs> ñàkk d'accord gi day tax débat bi ñu jëriñu ci. au finish am na ku nekk en ligne salaamaaleykum. maaleykum salaam ñu ngi lay ziar. yal na yàlla nangu ziar na ngeen def. ñu ngi sant alhamdulilah. Euh, man damay bala oote c'était par rapport ak agence de agence immobilière yi. waaw parce que je me dis que propriétaire bi nga xamante ne moom la ñuy fay. ba pare moom moo jox këram agence. Mhm. normalement frais d' agence bi moom moo ko waroon jël en charge mais pas locataire bi. Mhm. léegi loolu laa bëggoon xam ban lan leen si mën a def si si si décision wala yooyu noonu. parce que c'est très compliqué nga bëgg a trois mois deux mois de deux mois de caution un mois d'agence ba pare bëgg a fay ak tamit benn benn kii si loo xamante ne dañ ñëw rek ubbil